ka ku ku rok na yol na ho kana kang na jik do mene mene ingar umlai ge sidi ho kenyani ha ha ha pasar rok ko yang badata ingar ka ni ka emin lol to ha pasar rok ba ge jik ha rang na ha pasar rok da in ra una ra in ra in dok ko je ko pasar rok lal na tinangan katale kaya jo kaya chogienu na je eh, nde koy kam bukta no yum no fof manam yaal kalal ka jaɓ na jef fat rooga cooɗa in a den koy oga tay koy i ke i mbañeegna fop fo ke i feegna fop fop a xendan way kep oxu andoona koy a jeganga jef ke ba jeg ba mayit fata jego ndik rek e jeg kaana kaana ten ta ndaa képp ko andoona yee a jega nga képp ko andona a jega nga daal xana jëfan na ɗatale to ku lawna ta fi te botu bar fakala masala yaasam ta jeg kon daal keene moom rek a fagaay